waa Kéwoulo salaamaaleykum waa Sénégal ak doomu Sénégal comme ni leen ko diggee Kéwoulo dina dem saa su ne dugg ci ay ruq-ruqaan yoo xam ne ñu ngi ci biir Sénégal pour wone lépp mu doon découverte bu mën a permettre doomu Sénégal fu mu mënti nekk moo xam li xew ci réewam. tey ñu ngi ci Kabrousse Kabrousse ci dëkkum euh, la reine Aline Sitoé parce que ku ne Kabrousse xel yi dem ci héroïne boobu nga xam ne jëlee nañ ko Sénégal yóbbu ko fële ca Mali tey ñu ngi jàkkaarloo ak njabootam euh, kii di euh, Bruno Mohamed Diatta ñu ngi leen nuyu ak ñoom Samuel ñu ngi leen nuyu. Bruno fi ñu taxaw nii euh, Mohamed si ginnaaw bâtiment bi nekk si ginnaaw moo doon fi nga xam ne fa la la reine Aline Sitoé Diatta juddu est-ce que mën nga ñu fàttali kan moo doon jàmbaar boobu. soo gisee sawaay yu sundur ne ko jigéen bu mun góor parce que xam-xam bi ko yàlla may amul au moment où je parle avec amul ku am xam-xam boobu loolu moo tax Youssou Ndour di naan jigéen bu mun góor moom bu mu juddoo fii ñaari kilifa la amoon Silosia ak Awko Awko nag vamos sol nu on se mariant nu le trois quartiers bagine bi salsa ay ay alicité mo sol la jogé sey fi djomul juru fi alicité voilà e, carte bi ngay e gis nonu moy keuru silosia moy keur bayam bayam di silosia buñuy delouat encore ci aline sito Euh, li nga xam ne mooy prêtresse bi nga xam ne da doon wax lii ñëw loolu kañ la ko commencé feeñu. moom loolu mu ngi koy feeñu tëngëj bu mu demoon nekk bindaan. mooy mooy photo bi ngeen gis nii léegi nag ñii ñii ne bàjjanam kii nga xam ne mu ngi wax loo xam ne dafay neex ñenn ñi ñenn ñi du leen neex fexeel ba mu dellu Euh, dëkk ba waaw bu mu ñëwee fii wax dëgg amoon na jafe-jafe ak ñi ñi ba si yàgga ñi sonal ko mu dem ba Monsoor Monsoor nag mu jàpp am na benn yoon bi dem ba ci géej bi mu dem concentré wu foofu waaw noonu la su demee ba Monsoor aussi commencé ko jëppi mu tuxu mais bi joolaay xam nga joolaa du gaaw a gëm nit bu demee ba gis saay waxee dajale leen après ma ñaan mu taw lu mu wax day taw même picce yi mu ne bu leen yónni seen doom ñu dem dàq picce yi tey comme sama anniversaire la mala ma mooy eh, magal eh, benn picce du laal pepp ceeb donc bi kaabrus ak monde bi comprendre ne kii borom xam-xam la ñu commencé di ko jege nii la c'est pas facile Kabrousse jógul monde bi jógul rek jege waaw léegi euh, jóg boobu bu yemoon rek ci mbiru boppam ak ñaan taw peut doo loon du jote ak ñi nga xam ne mooy nasaraan si nga xam ne moo nootoon askanu Afrique jamono jooju lan moo indi problème am diggante moom ak tubaab yi. Euh, problème am ak euh, diggante ak tubaab xam nga Aline moo nekk nit koo xam ne. Eh, buy wax du calculer yow duñ ko dóor wala leneen moom du moment que eh, mi ngi dóor waar day wax rek dafa newoon Kabrousse nañu wàññi mbéyum gerte bi parce que gerte day rey suuf valeur suuf. te boobu tubaab dafa bëggoon ñu dañu bëggoon joolaay di béy pour ñu koy mun a fay impôt mhm. waaw léegi joolaay xamal ko ne ah, ñun bu ñuy béyul kii bi. gerte dina am difficulté parce que tubaab bi boo fayu leen po dañu ñëw jàppale yóbbu la waaw léegi si diggante boobu à chaque fois mu def euh, rassemblement euh, mu amoon benn agent secret bu tudd Tété Jéeju Tété Jéeju te te à chaque fois bu rassemblement amee Tété Jéeju day ñëw bokk ak waa Kabrousse dóor benn euh, sabadoor bu ñaggis bon ñëw bokk lépp luy Aline wax tëte jeeju moo ko doon nettali tubaab bi. tëte mooy tëte jeeju bi ñu tuddee école fële ca Ziguinchor. dafa amee ki ki signalé Alicité tëte jeeju la tudd tëte léegi ci noonu la tubaab yi jóg xeex ak euh, Aline Sitoé mhm. ba keroog ñu koy jàpp est-ce que mën nga ñu fàttali conditions yi ñu ko jàppee woon keroog. waaw ah, conditions yi ñu ko jàppee euh, conditions yoo xam ne. te si jaar jaaram noonu la war a demee parce que ñun fii comme par exemple euh, kër gi dafa sacré kër buur la donc à l'époque ah, jigéen euh, soxna ki bu gisee réglam warul fanaan fi day dem am na am na cité des mères cité baa ngi fële foofu lay nekk ba mu set dellu siwaat fii léegi moom bu mu fa nekkee ba mu set comme borom xam-xam la aussitôt yëg na ne le colonel Sajou entouré na gàlle euh, Aliou Gueye jëkkëram ba incident am foofu euh, première femme Aliou Gueye gis militaire yi lu xonq ragal mu bëgg a jàll ci benn fenêtre waaw si la ko militaire yi dóoree bal mu dee loolu dafa gën nekk ak ci Aliou Gueye mu ne woon soxlawul kenn waxati affaire Aline boobu ci période boobu kii di Aline ñi fa maire yi ne ko euh, da ngay yendu mu ne déedéet dama il faut ma yegg kër ga parce que taay yëpp maa ngi fi dafa dem ba jege gale mu dégg coup de fusil bi mooy bi ñu fusillé Eh, wu jëm moo tax bu mu eh, jàkkaarloo ak colonel Sajou colonel Sajou mbéj ko mais su ngeen gisee wax naa ko si Walfadjri su ngeen gisee Aline Souk Aline dafa bëggoon histoire am eh, riche mais Sajou xam ne fu mu dóor xam nga yow boo dóoree si yaram ki di nga xam mais boo dóoree si xeer di nga xam ne sa loxo si la jóg ne ko dóoraatal mu ne ko déedéet mu ne ko dooraate laa lay wax man may Aline man man ngeen soxla li ngeen defe dafa ñaaw war leen rey euh, sama wujj waaw boobu lañ koy boobu la joxe boppam ñu daal ko jàpp hmm. yóbbu ko fële ca Tombouctou avant ñu départ euh, Sajou dafa jël euh, avion para avion para mooy muy avion yoo xam ne bu naawee ba ci kaw ñu bu ma paaraay ñu wàcc loolu la bëggoon a def jëkkëru Aline Sitoé ko dugal ci eh, avion ñoom ñu ñuy jàpp groupé leen yóbbu jëkkëru Aline Sitoé mais bi ñu demee ba ci altitude bi Aline Sitoé wax ak ñoom ne leen sama jëkkër mu ngi noonu jotewul ak yéen dara delloo leen sama jëkkër man ma ànd ak yéen ñu bëgg a dof doflu mu fay moteur bi commandant bi laaj saa euh, su laaj euh, pilote bi mu ne ko ah ñoo ko gisandoo mu ne ko kon nañ delloo paa bi ci la def tour le tour atterriat génne paa bi. waaw booba ensuite ñu yóbbu ko Tombouctou ah, li ñu xaw a doy déggoon nañu ni ci ay information ni bi mu doon dem Tombouctou dafa fekkoon mu ëmb lan mooy dëgg ak lan moo dul dëgg ci loolu. non mooy dëgg. waaw parce que liggéey yàlla doom góor la bu mu demee ba màgg war a am eh, carte d'identité eh, extrait de naissance mu dem ba passé léegi bu mu demandé dañ ko ne il faut nga indil ñu sa bulletin. sa wari xale bobu euh, doomu aline citoye jaata bobu judd na fele ci tombuktu doom bi moom ak alugay waaw ok léegi euh, ci la ñëw fii mu fekk ma si coopérative bi man ak euh, silosia ak goy goy beneen góor bu tudd goy goy mu ne ñu salaamaaleykum en français ñu ne maasa mu ne ah man dama bëgg a dem si benn paa bu tudd alugay ñu ne ma ne d'accord ñun ñëpp ñu génne si coopérative bi waa ji tëji coopérative bi ñoo ànd dem ba ci alugay bi ñu yeggee kër alugay dañ ko fekk mu ngi togg temps récolte la temps récolte suñu femmes yëpp dem nañu récolter yow mi sax sa sa jabar da lay loo xam ne yow boo ñëwee yow yaay togg léegi nag ma ko paa bi aussi yàlla daf ko may parce que bi ma ko nee papa mu ne ma ne ko ah gan bi nee na yow la soxla mu ne ma ne ko bu mu xoolee booy bi xam naa dafa jéli mu ne léegi nañ ko may mu waxtaan ak booy bi ñu ne ko ah booy bi déggul joolaa déggul olof français lay làkk waaw ci la ñuy booy bi wax ne paa bii moo ma jur sama yaay Alicité moo ma ne naa ñëw mu defal ma kayitu juddu pour ma mun a am carte d'identité kon euh, yaa ngi indi teesu nit ñu bare ñu newoon Aline yi finalement gaañuwul Tombouctou hmm. parce que am na ñu ne gaañu na ba gis nañu bàmmeelam déglu naa kenn ku tudd Mamadou Nkrumah Sané hmm. nee na bàmmeel boobu ñu wone bàmmeelu madame Badji la ki ñu jàppoon ànd ak Nkrumah ak euh, ak euh, Aline Sitoé Diatta donc donc donc Aline Sitoé deewul moom bu mu paree service am dafa dem comme tout waliw vous vous rappelez euh, Cheikh Omar Foutiyou Tall saar bu tudd Naawur bi ko ali situé euh, kii ba pare raay boppam loolu moo tax ngeen dégg si Omar Foutiyou ne bu mu eggee dans les fleuves de Bandiagara la réer Alioune aussi c'est comme c'est pareil bu mu demee ba pare service am dafa réer tey jii mhm. gouvernement Sénégal mu ngi préparé ne day commémorer

man mi am na jour boo xam ne Abdou Diouf dafa ñëwoon bi ñun ñoo ko yóbbu ba si néegu euh, alugay mu gis fii alugay doon fanaan Abdou Diouf bu mu demee dafa defaraat lal lal bu seer alugay envoyé ko fi si la ñu alugay wax ne ñu wax Abdou Diouf ne moom dafa euh, sacré sacré lañ ko wax mm. waaw que ici à Cabrousse ñun xamuñu yooyu ñu suul nit ba pare ñëw suuliyaat la c'est sacré c'est le donc tey donc tey Abdou Diouf nanguwul leen ko est-ce que di ngeen ko nangul tey gouvernement bi. Abdoulaye Wade aussi répété woon na ko fii mais Kabirou ñii c'est sacré fii fii ñemewul fii mën nga bàyyi sa dàll pendant deux mois boo ñëwee jëlaat ko fii fii fii comprendre nga. man nangu naa par exemple un jour on a eu ce débat là avec Ablaye Ablaye Ablaye Wade mooy jamono bi bi doomam doon ne Ablaye Wade na ko tabax musique bi Gambie ba Ablaye ne ko doon waxtaanu ñu noonu ak Bruno. mooy sët bi foofu laay ñëw ak yow. ñaata doom la ren Aline Sitoé Diatta am. ci ñaar ñaar ki gaañu ki nga xam ne tombo mu ngi fi. ki nga xamné la c'est un secret ni ngay secret d'État man aussi man ak borom kër gi euh, on a eu des entretiens avec le consul des États-Unis ba mu ñëw fi ñu amaat daje avec euh, le l'ambassadeur des États-Unis non ba fi ni xamna né gis ko alors donc c'est un secret qui est entre man

Euh, am na ay journaliste euh, de France Inter posé na ma question bi ne ma léegi lan ngeen nar bu ngeen demee ba dossier bi may toppatoo nii ak Macky su pare est-ce que bu ñu familiarité dinañu porte plainte France ou pas mane ne déedéet foofu eggaguñu loolu foofu te su naree nekk man seen jaam la. famille bi ah, pour le moment l'essentiel dara l'essentiel que l'État s'en occupe de cette famille d'abord. ci ci wolof askanu Sénégal a je lay suis jeunesse su Casamance mo ngi lay Je ne suis Sénégal ñu foog ne bu ñu fi ñëwee nañ fi fekk quartier boo xam ne dafa fier ci reenam nañ fi fekk ay réalisation ak i musée boo xam ne mën nañu ñëw di seet fekkuñu fi dara tey lan moi cadeau gi nga xam ne mon ngay sànnil askan woowu pour au nom de la reine mais au nom de la réhabilitation pour ñu dire a taxawal fi dara. Euh, man bimade me demee daaw Dakar wax dëgg Pierre Atepa waxu ko ci gémmiñam mais dafa wax jeunesse su Kabrousse ñi nga xam ne dañuy liggéey si dossier boobu ak man ku mel ni ababakar hmm? ñoom amay ka am na fii am na ñoom eh, Dominique eh, <coughs> ñoom ñoo ma ne li ngay xalaat mooy ki la war a defar plan musée Alési Touré mais Pierre Atepa Goudiaby nee na su jotee yow di dem à Dakar ngeen ñu ànd man ak moom mais bu boobaa ñii ñu ngi ñu nii taxaw ñu déggaat li may wax bu boobaa ñoom famille bi ñoom ñooy décider fu ñu war a def musée bi du man man nangu naa liggéey pour affaire bi sotti mais ñoom ñu nii ñoom ñooy ne état bi ñun fii la ñu bëgg bu boobaa damay ñëw ak Pierre Atepa mu defar plan bi ba pare mu delloo ma plan bi ma jox ko euh, Macky Sall léegi Macky Sall mooy seet entrepreneur bu mu wóolu état entrepreneur bi mu mu mu tabax musée bi. Euh, je crois que dégg ngeen ma tuuti. jërëjëf